ngeen namp ko nu naan leen damana na ngeen naan xaan yooyu ko itam naxi gouvernement bii fi nekk tey wane nañ ko ci loolu Sénégal bu ñu ko séddalee téeméeri cër juróom-ñeent fukki ñëpp juróom yëpp ay wolof la ñuy wax en tout cas juróom-ñeent fukki ñëpp juróom yëpp dégguñu ay tubaab kon nag mënuñoo fekk réew mi ñu yor ko ci làmmiñ woo xam ne bii bu ñu tànnee asaka ji sax dégguñu làmmiñ làmmiñu tubaab moom la ñu fab ñage ko seen digganteeg mbooloo mi ba mbooloo mi du xam dara ci naq saxal nañ nga xam ne moom la wax bu dégg bëccëg su ngeen ko déggee ci rajo bi ku mën a naxoon ñetti baat tubaab bu lakkee ci rajo bi ngeen daal di seen bopp ne man baa doon laa jànguma daal di tiit defe ne li wax am na maana te bu ñu ko waxoon ci wolof ngeen tabiyat dégg nga loolu bu fekkee bëgg na ñoo da ngeen di xam ne réew moo xam ne mii dañu koo not lu yàgg nit ñi seenum xel sax day ràgg fi mu nekk ni xelum nit ñi dafa ràgg fi mu nekk ndaxte bu dul woon loolu da ngeen gis ni mu juunoo say ni mu juunoo say ay nit ñi ñun ñu dajaloo ñoom ñëpp ñu dégg wolof ñu ne fa ñukk wolof ya di wax lan moo xam ne ku ci nekk da koy nax naxal dégg fi mu nekk tey bu Sénégal tasee ak Gambie ñu waa Banjul ay wolof la ñu dégg loolu waa Sénégal ay wolof la ñuy wax te bu ñu dajaloo dañuy fab interprète ñoom ñaar ñëpp ku ci leen demee kenn ci mën ko ne ah dégg dañu koy wax ci français ñu tekki ko ci anglais ñu dellu wax ci anglais ñu tekki ko ci français ñu tubaab yi la ñu kanam bu ngeen geesoo seen ginnaaw bu ñu suñu parti bi nekkee delluwaat di tàggat seenum xel di leen yee buñ doxee tuuti bu ngeen geesoo da ngeen gis loolu ni mu juunoo tey ndaxte xeeb sa bopp da ngay sa bopp ba lu laal ci nga xeeb ko fi mu nekk xeeb ngeen kàllaama nit ku ñuul defe ngeen nit ku ñuul defe ngeen nit ku ñuul daanaka du dara te làmmiñu nit ku ñuul bu ñu doon topp cosaanam sax moo gën a yàgg làmmiñu tubaab fop dégg te loo mën a wax ci tubaab mën nga koo wax ci nit ku ñuul boo noppee làmmiñu nit ku ñuul boo noppee xeeb sa bopp dégg te itam mënu leen a yor réew mi mukk yorin wu rafet te yoruñu ko ci làmmiñu suñu loolu na ngeen ci dañ kumpa ku leen ne mën naa yor réew mi ci làmmiñu tubaab yemale nit ñu waxul dëgg ndaxte yéen a ngi nii yéen ñëpp a nii kenn mënu ci nekk béykat ndaxte kenn mënu ci tëru ci tubaab bu ko defee bu ngeen di falub député kenn ci ñun ñu ngi di fab koo xam ne kii xamul dara ci lu xew ci seen i xamul dara ci seen i xamul lu béykat yi nekkee xamul luy na da ngeen di fab da ngeen di fab li ngeen daan tuddee tubaab bu ñu jëbu jëbu moom ngeen di fab moom ngeen di fab ndaxte nee nañu assemblée nationale fa ñuy toog fa ñuy dem di tawate nee nañu nee nañu néegub tawatukaay ba néegub tawatukaay ba ay tubaab la ñu fay wax kon nag ku fa waxuli tubaab rek ku fa mën nga ñëfal ci tubaab doo ko mën a dem ba tax na bu ngeen dajaloo yéen ñëpp tey di waa Salaam war a fal kenn ci seen biir na ngeen mën a def da ngay tànn ci ci ci xaw a mën a ndaxal ci tubaab yóbbu te baykat yi nekk fi xam ne réew mi nekkee day mu kàllaf réew mépp di waxi wolof te nga xam ne bu ñu ko doon wax ci wolof a jaayee gerte gi ak lu a teg ren ndax nit du ñu leen jaar fenn te li feeg waxuñu ko ci wolof dañu leen di nax képp dañu leen di tóoj na ngeen ko xam kon nag réew mi bu ñu leen ne mën nañoo yemale ci làmmiñu jàmbur waxuñu dëgg ndaxte bu ñu làmmiñu jàmbur ñu ko fi dégg mësuñu asaka réew mi kon nag ñu jiite réew mi ci asaka jooju rek la ñuy jógee ba kon nag dégg nga mënuñoo yemale démocratie mënu fee am li feeg ñu ngi yor lii mu ci làmmiñu tubaab loolu war na leen cee jëkk a yee socialisme mënu fee am li feeg ñu ngi yor li li feeg dégg nga réew mi ci làmmiñu tubaab la ko yor kenn mënu koo tabax ndax mënoo tabax am réew ak asakay réew mi yooyu yëpp na ngeen ko xam développement bi ñuy wax waxuñu dëgg mën la am démocratie mënu fee am socialisme mënu fee am li feeg ñu ngi yor réew mi ci làmmiñu tubaab te yoruñu ko ci làmmiñ ñi nga xam ne moom ngeen dégg làmmiñu tubaab la ñu fab kon ñege ko seen diggante ak mbooloo mi ba duñu dégg li mbooloo mi tawat dégg bu ko defee mbooloo mi xeeb boppam nangu rek dégg nga ñu war ci ginnaawam ba faaw loolu moo leen ci war a yee dégg nga bu ngeen xam ne ci addina yooyu mooy yi nga xam ne yi waroon nañ xam ne kon suñu parti bi wax naa leen du leen yombalal lu jafe suñu parti bi parti boo xam ne lii ko yëkkati gis ngeen ko gouvernement bi àndatul ak sagoom seen woor gis ngeen ko